mbokk internet yi boobee ba léegi gis ngeen ne ñu ngi ànd ak yéen fii ci kër Baye Karim euh, fii nga xamante ni nekk nañ fi mu di saalu yàpp yi ñu ñëw fi nag ki nga xamante ni moo di soxna Ndeye Gueye ñu bëri xàmmee ko lool nag ci réseaux sociaux yi mu nekk jàmbaar koo xamante ni nee naa loo ko naxee ci Serigne Fallou bëgg na kon nag bu ñëwee fii kër Serigne Abdou Karim dafa mel ne rek kóllëre gi nga xamante ni am na ko ci waa kër Serigne Fallou yi moom lay dox si ni ba tey ñu nuyu ko duñ def leen du bàyyi ko rek mu daal asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu euh, di nuyu senegaal yëpp di baalu ñëpp ak di wax ñu màggaleek jàmm ñibbeeg jàmm di wax sëñ taxaa yàlla na fi yàgg lool te wér sëñ Abo Mbàkke mi nga xam ne moo toog xalifa sëñ Fallu yàlla na fi yàgg lool te ak sëñ Fata di nuyu sëñ Abdou Karim bu baax a baax di nuyu yaay puy mi nga xamante ni euh, maa ngi nii toog saalam di nuyu soxna May Bàjjan mu sëñ Abdou Karim di ko ziar bu baax a baax a baax waaw. dégg nga sànq ni ma ko waxee ci sama nuyoo ku la ndaxee ci sëñ Fallou nga jël lu waral loolu. ñun ay taalibe lañ parce que sëñ Fallou daf ñoo defal ñu gis. Mhm. waaw ku ñu naxee ci sëñ Fallou ñu ñu jël bi laay walaay ne sëñ Fallou daf ñu defal ay yëf. Mhm. waaw ñuy sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba bu wér a wér a wér waaw. Mhm. ndax sant yàlla rek. sant yàlla rek ndax lii dafa neex. waaw ni dëkk bi demee woon. sénégalais ñëpp tiit. waaye nee naa la sëñ Touba amul ay tànk ginnaaw tànk kanam rek la am barke sañ Fallou mbur ndigal jëfe waaw. ndax bii mooy première fois boo ñëwee fii kër sëñ Abdou Karim kan man man fii laa dëkk ci biir kër gi laa dëkk man bu sama waaja làqoo ba tey muy Alaaji Baara du Abdou Karim laa am waaw su ma gisee lu mbooloo mi bari bari bari dinañ déggee waaw loolu sant yàlla la mu ñëw nag yaay puy nekk nit ku baax ni sama tante nag waaw ma koy gërëm moom tam bu baax di gërëm soxna may galas bu baax bàjjan mhm. muy taaw sëñ du Karim nekk nit ku baax moom it chaque année bu ma ñëwee këram laay dal appartement am laay dal mhm. waaw di sant yàlla bu wér daal di nuyu sama yaay ji toog moom ñoo bokk suñu géejawaay moom mhm. maa ngi di ko ziar waaw jërëjëf safar gi ba mu dooree gis nañ la yaa ngi doon dugg ci marché bi di def ay màjjaal ak yu ni mel bu ñu koy def ban mbégte nga ci doon am waaw dara man dama doon dama doon safar noonu rek dama doon dem jóg di màjjaali ñàkkuma lu ma defaree safar sant naa yàlla ndax am naa ay nit ñoo xamante ne ku ma ci woo nga jàppale ma ci sama safar mais man maa bëggoon jël sama këll ñu xam ne ñu xam ne ñaqal Serigne Touba ñu xam ne murit yi li ñoom dañuy jaayante waaw ku ci def sa fukki dërëm yàlla na la suñu borom yokk ba ma commencé majjaal gi ba ba ba def ko ba pare képp ku ci yëkkati sa dërëm def ko ci wala nga yëkkati sa fukki dërëm def ko ci yàlla na la yàlla yokk balaa déwén ci barke Cheikhul Khadim ci barke Allaaji Fallu yàlla na la yàlla yokk képp koo xamante ne bi may majjaal ma même boo ko amulee sax amoon nga yéene yàlla na la suñu yàlla na la Serigne Touba yokk ba nga xam ni yokk na la waaw. Euh, léegi ñu laal beneen affaire ñu wax ci li nga xamante ni moo di sëriñ bu mag bi ni mu daan yaree ak ni mu daan jàngalee ndax loolu noonu bu ci ndaw ñi delluwaatoon du waral euh, jikko yi yàqu yi am léegi jamono ji ci réew mi. sànq rek maa koy wax ci benn interview ci biti ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne sëñ bi dafa toroxlu jaayante ba am li mu am donc man contre naa ñuy ñëw Touba maquillage fii sañse fii puudaru fii photo wu fii snap fii solo ko simmeeku noo man man bokk man bokk man bokk nañ ma baal na ma sama mbokk jigéen ñi baal man bokk contre naa loolu dañuy jaayante Touba jaayantee la laxasaayu la da laxasaayu def say tànku neen jënd say kawas sol doo maquillage doo def dara doo bëgg dara jaayante am li nga bëgg boo ñibbee ngay xam nga ngay xam ne yow jaayante dem dañ naan sama valise bi bii laay xëyee bii laay gontoo nekk ci taal yi ndax loolu tamit màggal la moom laay moom moom laa lay am na ñoo xamante ni noonu lañuy ñuy màggale mais man géey dépp ba may màggal ba tey ñetti yére laay indi su may ñëw bi may sol su ma ñëwee ba sangu pare bi may sol jour màggal yére bi may sol su ma paree moom laay ñibbee du ma fi nekk di maquillage du ma ko defal kenn man ndax mënu maa boole tàngoor ak maquillage moom mun nu am fenn du tàng ba pare ma topp di maquillage sola ko simmeeku di sinab ak yu kenn ñëw naa Touba ba ba dugg sama sama téléphone suna bu ma ci benn yoon jóge naa Dakar ba dugg Touba su may snap damay bàyyi ba dem kër ga mm-hmm. waaw ma mën a snap wala bu ma gisee loo xamante ne bu ma ko snapee dina ma amal njariñ dina amal njariñ samay samay samay samay ami mm-hmm. ma def ko mais pas ay sañse gii moom ndax dëgg yàlla moom nekkuma ci moom wax fa dëgg yàlla mais xam nga nag doomu yëpp yemuñu kenn ku nekk ak sa xalaat bi nga taxe mais man moom man day gay man moom ngan gaa man toroxlu rek mm-hmm. man mbirum Sëñ Tuubaa toroxlu rek toroxlu rek damay toroxlu rek damay jaayante rek ba am ma bëgg man moom man moom muri ndigal ndigal jëfe am na solo ñu gis jamono jee tamit gisoon nañ benn vidéo boo xamante ni nii daloon na la loolu muy muy accident bu ndaw rek ñu gis ne boobee ba tey nit ñaa ngi lay tiktok ak lu ñu di ko def léegi naka ngay dundee loolu. Eh, man ci màggal laa ñëw yow pour ay affaire vidéo yi. loolu dara. sëñ Tuubaa dañoo dimbali. sëñ sëñ Tuubaa dimbali nee naa ko merci damaa fayoon mu tàllaat ma jërëjëf. loolu sant la waaw. <laughs> sant ñëpp sant ñëpp waaw. di gërëm ñëpp di baalu ñëpp àq. Mhm. waaw di jaale sama benn suma benn rakk. Mhm. rakk zoo sama benn doom ñu koy wax papa dafa def choc tey ci ci bémb ci guddi. Mhm. ci moto suñu boroom dogal mu ñàkk ba kanam jotaguñ sax koor bi maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana xale bu baax xale bu amoon avenir. vingt ans sax matagul. vingt ans sax matagul déggaloon magam magam mooy sama xel sànq bi ñu ma ko waxee sama yaram yëpp simmeeku sama dama tiit ba sama biir bi di métti soxna may may ma garab ma naan billaahi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana yàlla na aljana di noflaayam sama rakk jooju yàlla na aljana di noflaayam dama dugg sama portable léegi xool vocal yi mu mujjee envoyé rek sama rongoñ sotti xale bu ndaw boo xamante ni ñaar fukki at sax te suñu borom rek a sañ loolu barki sëñ Fallou sëñ Touba mi mu doon ñëwal yàlla na ko sëñ Touba Mbàkke ramm yàlla na ko sëñ Touba ramm zoo maa ngi lay jaale di jaale waa yaraax yëpp waaw